noonu ngeen ko seetaanee ci direct bi waaye xool ko ci suñu yë reportage yi jiitu muy zikrulaa bi ni ko sëriñ bi diglee zikrulaa bi juróom-ñetti waxtu ba fukki waxtu noonu la ko Baye Fall yi defee noonu lañ ko daal di respecté heure bi nga xam ne ni ci teewaayu kuréelu Zikrulaay waaye ci teewaayu ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi boo leen gisee fi ñu taxaw nag buntu résidence Khadim Rasoul ci biir nag kuréelu Isbu Tarxiya mu ngi ci biir waaye ñu jàkkaarloo ak bâche Serigne bâche bi nekk buntu kër Serigne Fallou di bakku ci bërëb yi nga xam ne ni foofu la ñuy dundalee njàngum xasida mi biir jumaay ji ñuy jàng alxuraan ñoo fa nekk waaye yeneen kër yi nga xam ne dañoo wër jumaa ji itam noonu la ñuy dundalee njàngum alxuraan mi ak njàngum xasida mi ni ko Serigne bi dégle woon rek bu 10 heures rek ci la ñu daal di tàmbali njàngum xasida mi ci kuréel waaye li ko jiite nag درسوا القرآن بأقصى دعي دفع عندهم أذكر الله بي كن تكلم توتي نيجي في بنت ريزيدنس دخارندي خليفة جنرال ديموريت شيخ محمد المنتخب بكى موارنيونك فينا خمدني فوفلي نك عند أكبرهم كرلينا خمدني تيجي نيجي تابي وات الشيخ محمد المنتخب تفتلي دنياري أجمع يخمدني تيلن كتامبل أقبل دنيو ذكر الله jàng alxuraan jàng xasida di ko ci ñaanal mu yàgg fi loolu téwér kon ci kanam tuuti dinañ ànd ak yéen ci deuxième partie bi muy li nga xam ne moo di njàngum xasida mi alhamdulillahi alkarimi dhil minan ala ishtighali bi furudin wa sunan alhamdulillahi alkarimi dhil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 وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى الشفيع وآله وصحبه النجوم القاهر النفوس والرجيم هذا وإني اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داع وعن شكرك لا أريم منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين فقمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إلى سواك قد سرت لما لم أجد شرواك فجدت لليوم بخير منني وقدتني إلى اقتفاء السنن من بعد ما كاد Abdou Dieng ñu ngi lay ziare bu baax di leen ndokkeel ci liggéey bu am solo bi muy njàngum alxuraan mi di benn ponk bu am solo ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha yi ngeen koy taxaw wàccuwaayu alxuraan ji ak ndigal li ak yëpp kàddu yooyu barkeeloo rek bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëñ Abdoulahi ñu ngi lay nuyu di jiital yàggal tam ànd ak wér di nuyu itam mboolem ñi bàyyi xel rek liggéey bi di leen jaajëfal si taxawaay bi ni nga ko waxee rek lii day ndigal loo xam ne dafa bàyyi koo ci Cheikh Mouhamadou Mountakha nga xam ne waxtu wu nekk mi ngi lépp luy jëriñ ak jullit di jëriñ taal bi suñu bay mu leen koy joxoñ nga xam ne day toppandoo yonent bi sallallahu alayhi wa roy ko ci li waxoon ne amul lenn loo xam ne gis naa ne aw yiw nga fa loolu la tegtal naa leen waaye gisuma lenn loo xam ne am aye nga ca lu dul ne wax naa leen ngeen sori ko kon sëñ Mountakha looloo tax yéeneem du rëy jooju bëggam kooku bëgg sëñ Touba bëggam kooku bëgg sunu yonent bi moo tax waxtu ne muy xeet xool lu jëriñ xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu daal di jël ay ajjumay Touba ci ni mu ko jëlee ci ndigal yi mu ci joxe ci jàngum alquran sikrullahi jàngum xasaayid nga gis ko nii nga ko gis rek mun yëpp xëy si ba baag léegi kenn ku si nekk fa nga sa war a féete rek yaa nga sa di def sa leen saban ndax mën ngaa dikkaat tuuti rek euh, ci yow say jàngat ñeel jublu gi ak euh, yéene ji nga xam ne ni Cheikh Mouhamadul Mountakha yéen ak na ko jàmm mboolem jullit yi rawatina taalibe Cheikhul Khadim yi ba tax muy dégle lu mel nii. xam nga sëñ Abdoulaye daam lu waxoon yàlla na ko yàlla fay dana woon fépp foo gis lu baax nekk fa dañ fay def lu baax waaye fépp koo xamee ne defuñu ko lu neex yàlla bu jàmm njëkkee du ñoom xam guñ xam ne suñu borom waxtu wu nekk mi ngi ànd ak jaamam yi si yërmandeem lay sabab nag yërmandoo jee di wàcc ñoom dañ koo xam te loolu dasaa bokk tuub delluwaat ci yàlla dasaa bokk sarxe dasaa bokk di jàng alquran dasaa bokk di julli si yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokk kenn ku ne la nga ëmbal sa morom ci lu dul nga bàyyi ko te xol yëpp ñu fóot ko ba set daal si dugal suñu borom moo tax waxtu wu nekk rek sëñ bi di ñu wax ne buñ maanaam waruñu see jóg benn yoon waruñoo jóg si alquran benn yoon waaye nag day rawati nag su fekkente ne bi si ajuma yu tedd nii moom daf ñu koo digal loola kon xam na moom la mu see xëcc sa mbiru waaye xam nañ ne dem ñuy jëriñ si xol yu ñu nekk gi ñu nekk ci ndigalam loolu nga xam ne moo moo dox suñu diggante ak moom ndax suñu diggante sëriñ bi weesul moom moo ñu digal ñun ñu koy jëfee te gis nañ ne mboolem lu mu mës a digal rek lu ñu amal njëriñ la dañuy jàpp ne nam daan diglee te faral nañ koy def saabu nawet bi jege si fu nekkal suñu Tuubaa digle ay ndigal yoo xam ne jëm ci am njàng wala tuub wala sàkk sarax daa mel na xëy na yooyu mën naa lii mën naa bokk sa yooyu waaye bu dul loolu yi rek moom gannaaw moo ko digle rek dañuy xam ne njëriñ dong la làmboo loolu daal lañ ci jàng waaw fi ñuy jeexale mooy ay ndénkaane ak i soññe ñeel mbokki taalibe yi nga xam ne ni dañuy faral di teew ci bërëb yu tedd yi rawatina nag ci eh, njàngam alxuraan bi ak lépp lu aju ci ndigal li waaw xam nga alxuraan dafa wax ne wa man yu'azzim hurumaatillaahi fa huwa xayrun lahu wa inda rabbihi la nee na ku warmaal li yàlla wormaal moo gën teew bërëb bii nag daa bëri worma ndax fi la Seexul Xadim nekk fi la jumaam ji nekk fi la ñuy jànge xasidaam yi fi la itam alquran yi ko fi yëkkati Baay Faal yaa ngi nii di yëkkati pour yàlla wi gaa yu baax yëpp a ngi fi te dañoo xam ne fépp fu ñuy jàngee alquran ak du fa tudd yàlla jinne yi dañ fay ñëw ñu gëm yàlla ci jinne yi ak malaaka yi kon bërëb la mu laaj worma kon lépp luy gën a tax rek mu sell te jëf moom rëy gaag néew ga donte am na sa solo waaye dafa am loo xam ne moo si ëpp ci solo mooy sellal gi te sellal gi mooy def ngir yàlla ak itam nag pas-pas di ko lal yéene nga xam ne booy toog di taal tàmbali liggéey bi nga fas ci liggéeyal Sëñ Tuubaa nga fas ci jëfe xam ne yàlla da koy sotti ci réew mi waaye def jàmm ci àdduna bi defal jàmm waa réew mi yëpp may ñu nawet boo xam ne lañ sa bëgg lépp ko mën a du ànd ak benn lor yooyu yëpp daal moom ay dénkaan la maa ko jëlee taxawu taal bi faaw. ngeen nekk ci ndigal li di taxaw lépp lu jëm ci kuréel yi liggéey bi nu mu tënkoo ak lépp loo ciy leeral rek ak soññe yi bisimilah. waaleykum salaam wa rahmatulah ñoo ngi leen di nuyu bu baax di siyaar di ndokkeel waa ñu ko fekkee ndigal li moom ci jotee mu jaar ci suñu suuti jëwriñ daara ji ñun ñi nga xam ne ñoo yor ci taxawu kuréel yi ànd nañ ko tënk ko ànd ko itam. ak kuréel yi ne ci biir dëkk bi yëpp moo xam ak lu xasida njabootu si ñam sa wala mu xamatu xidma jumaa ji wala ñëpp rek ñu àndandoo bu dee fii nag muy mbaar mii nga xam ne moo jàkkaarloo buntu kër Sëñ Fallu lenn ci kuréelu isbu taraxe yi ñoo fi nekk ak yenn ci kuréel yi nga xam ne itam ñu ngi bàyyi ko ci ahlu xasida yi nga xam ne sa xam ne ñoom am na ci seen kuréel yu ñëw fii naka noonu itam am na kuréel yoo xam ne ci isbu taraxe lañ bokk dem nañ ci fii nga xam ne la Sëñ Amsa nekk fi Sëñ Ablaat jàng boo kër Sëñ Tuubaa yi am na kuréel yoo xam ne ñoo fa nekk am nekk ak Sëñ Muntaxa xalifa général des mourides fi yàgg te wér loolu itam bi ñu xëyee juróom-ñetti wax muy 8 heures tàmbale nañu durus bi diggante alquran ak jiwaani ak xasida yi biñ demee ba 10 heures nag niñ ko niñ ko digle woon ci la njàngum yëkkati bi tàmbale nga xam ne barab yi nga xam ne yëpp kon moo wër jumaa ji eh, kuréel yi ci waxtu woowu lañ tàmbale eh, ci tënk daal liggéey bi noonu noonu noonu la demee boobu léegi itam mu ngi wéy kuréel bu nekk eh, xasida yi ngay jàng ak daaj yi ngay jàng wuute na ak sa morom bi muy jàng loolu itam ñu ci jublu ngir ñu jàng xasida yu yu xaw a takku ak daaj yu xaw a yaatu naa benn soññ rek jëmale ko ci mbokki taalibe yi teew kuréelkat yi rawatina itam ci ajuma bi di ñëw ñu xam ne itam ni la war a demee incha allah soñña bi daal weesuwul fonk ndigal li rek ndax sab sëriñ moom la mu xam ak lam lam la bëggal ak la mu gis ginnaaw yow mënoo ko gis la ëpp solo mooy bu joxoñee euh, bul xool xat-xat bul xool yitte bul xool jamono waaye da ngay xam ne jëfe ndigal li sa njëriñ ci la nekk Euh, loolu kon donc yëpp xamee ko noonu bu ne woon at mi yëpp ajuma ju ne nañ ko dundal it dañoo war a jekk ci dundal ajuma ju nekk euh, yàlla def tawféex nag yoonu murit kuréel xasida yi moom bari nañ fi jànkatu xasida yi bari nañ fi juruskat yi bari nañ fi kon yaakaar naa ne dundal bis bi moom du doon lu jafe la ci des rek mooy am pas-pasu ni ko sëñ bi bëggee euh, ak waxtu yu mu génnee ñu fexe ba lenn lu seen ñu def ko ni nga xam noonu la ko diglee وكثرا خيرات هذا البلد ورزقه ولتكفه عن نكد ولتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن والتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جحود والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيضان wa ma fi l-ardi turran wa samaa min zaahirin wa baatinin maa ngi lay delloo siyaare tey ñaan yal nañ yàgg siyaarante te kilifa gu baax gi nga xam ne moo ñu digal lii yàlla digle yonent bi digle ko Sëñ Tuubaa digle ko yal na fi yàgg lool te ànd ak weer mu yàgg nu ko digal ñu yàgg def ووفقنا لصواب وصلاة ولتغرنا بفعل ما أحببت ولتكفنا عن فعل ما أبغضت سيدنا عبد القادر بوسو مام سيدنا دهرا بما عبد المطلب بوسو يا سمد عبد الاحد مكي مي وهب لنا التيسير سيدنا عبد الكريم تواب على محمد فاضل با سيدنا عبد الكريم مام ما يا خالي مام نتو سيدنا عبد الكريم مي هذا اليوم وجاه بس بو تيد بي في بر بو تيد بي كي ندي لو باخ دي محمد تو في يالا باخي ما توغ ني ني ديكو ديف لول مانكي سانت يالا آه. عليه صلي ابدا ديغال سيدنا مانام ديغال rotee ci Sëriñ Muntaxa mi Sëriñ Tuuba jëm si ci sëñ Mouhamadou Xaban moom El Hadj Mouhamadou Fadal Mbacke loolu lay sant yàlla la ma cay dolli nag mooy est-ce que Sëriñ Touba lii Sëriñ Touba daal moo Sëriñ Touba moom la yàlla faral alhamdulilah bi ñu yàlla defee ñu farak ki yàlla faral. bis bii nañ ko daa wootee wootee wuñ sax genn wàll ga te tey la gën a gumb tey la gën a def maa ngi jokkoo léegi si Abdou Fata muy yéem a ko def lépp bëgg kenn ku ne mu di la ca eh, jéem a jox as eh, eh, as kii mën na ko kenn defu ci dara sëñ Tuubaa la yàlla nangul ku yàlla nangul nag sëñ bi dafa neex a liggéeyal loolu rek laa doon wax mbat maa ngi yëpp maa ngi maa ngi siyaare ku baax lool tey ñaan yàlla na fi yàgg te ànd ak wér wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaw xam naa lay sant sant gërëm ñu tur si mën a xam ñi nga xam ne sëñ bi nga ñu wàccee ci kawam taxaw na taxaw bi ñu doon taxaw woote ko ñun ñëpp ñu ngi fi sëñ bi kon li sëñ bi bëggoon ñu ko bëggoon amee na ko lool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 te daal woote bi mel na ni li ëpp ci daaray alxuraan yi wuyu si nañ ko fii ci jumaa ji عليه والآل بأفضل السلام وصحبه ومسكن القط يا سلام وزك نفسي وزدني علما يكشف في الدارين عني هما وطهر قلبي وزدني حياة وأحيني في طاعة يا ربي واجعل يمينك سحاب في سخاء ميمونة في شدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسبكن اليوم أنفع طريق بحرمة المشفع المقرب والآل والصحب وشهر رجب جد لي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتصديق التوفيق بحرمة الموفق الفاروق وليهب سعادة الدارين بحق عثمان أخي النورين ثم بحرمة إمامنا علي هب لي في آه، الدارين صيتا يعتلي يا ربنا آه، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا قبل نظمنا بحرمة الحسن نعم، والحسين مع حرمة كل من إلى الصحب جمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمول يا رب وما Euh, li mu waxoon mooy fas yéene jël ay matuwaay los ko ba nga xam ne kenn ku nekk soo ñëwee li la li sëriñ bi digle da nga ko mën a def ci ak dal ku teewlu te doo ci am dara lu la lu la gàllankoor jàpp naa ne su ngeen gisee ci bunt yëpp ak ci penc bi suñuy ndaw ñu ngi fi ngeen gis leen ñu sol ay mandarga ngir lan li seen liggéey mooy saytu lépp loo xam ne mooy li waral li sàmm war يسوقني إليك حيث علما نعم، وكل ما عنك يعوق يا بديع فلتفرقا بيني وبينه سريع أنا الذي أسلمت يوما إليك عازما على أن أسنى أنا الذي لست أمين أبدا إلى سواك هناك نفس لم لا وأنت ربي وأنت حسبي ci fajar gi ñu xëy bale jumaa ji lal tapis yi def ci lu neex midi et demi ñëw taxaw ci bunt yi ngir jubbanti sàppe yi xajjale góor ñeeg jigéen ñi loolu kon moom lañ wéyal ni tey nga xam ne gis la boo xam ne bis spécial gis nga jumaa ji ni mu teelee fees te midi jotagut kon jaadu nañu teel a xajjale góor ñeeg jigéen ñi ba doo julli ci penku bi di gis jigéen ci sa kanam wala jigéen ci sa ginnaaw loolu moom loolu beneen bi ñam yi nga xam ne ñu ngi koy andi fexe ba organiser ko ba couloir yi yokk bi ci lay ci lay ci lay nekk li nga xam ne mooy jëmmi yaxub jumaa ju mag ji nag moom kooku moom dañuy bañ ñam dugg moom moom toog jàng alxuraan ak julli rek lay doon loolu daal boo boo ko dee xool mooy liggéey bi nga xam ne daal mu xam ne ñu koy def ci suba ba léegi ngir fas yéene daal li sëriñ bi digle diir bi mu waxoon na ci lay tàmbali ba diir bi mu waxoon na ci lay yam ku ñëw da nga mën a teewlu ànd ak dal mën koo def ko sëriñ bi xëy na mën nañ ne kon ni ngeen ko organiser mbokki taalibe yi wuyu si tey gis ngeen lu kawe njort ci euh, jëfe ndigalu nga xam ne nii sëriñ bi joxe na ko waaye jaarale ko ci mu xaddamatul xidma ngir wakkar jumaa ji waaw euh, mën nañu mën nañu wax ne daanaka 70 pour cent yi moom euh, réussir nañ ko ci nos ndax gisaguñ benn rëq-rëq boo xam ne mën nañ koo constaté ci loo xam ne ay foodaa la wala ak nit ñi ñàkk dal la nit ñi neex nañoo jubbanti ngir mën a jëfe ndigal gis nga diir bi ko sëriñ bi wax ni mu gàtte waaye tamit yéen tamit lu mel ne communication bi al Mouridiyyah ak lu mel ne Touba TV ak télévision yi ngeen lëkkalool communication bi tax na it ak plateau yi nga xam ne organisé nañ ko mel na ne nit ñi déglu nañ ko tax na yomb ñu yomb euh, a yomb ci moom ba dañuy daal di mobiliser membre yi nga xam ne ñoo ko war a def ngir ñu def li am solo rek mooy Euh, sëriñ bi li mu bëgg moo ko xam maanaam li tax mu jëf digle ko moo ko xam maanaam ñun jëfe la ñam te bu ñu la njariñul Sénégal la njariñul àddina bi la kon nag a doon ay soldaar yi yoo xam ne ñu déglu ndigal ci ki fi nekkal sëriñ ngir ñu ko gaaw mën a jëfe ndigal loolu ngir mu jariñ loolu nag yàlla ñu yàlla dimbale ba ñu ba jant bi so ba fi ko sëriñ bi yamale insha allahu rabbi euh, الطائر وكل طائر وكل ماشي وكل خامل وكل فاشي وكل حاسد وكل شاني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع شيطان مريد وشر ذي القرب وشر الناء والحر والبرد وشر الماء وسودني وأيدني أبد وطهر القلب وصحح الجسد yéen a ngi kër sëñ Abdou Lahad di benn ci bërëb yi ñuy dundale ndigal li ànd ak waa kër sëriñ Amsatu Mbàkke ak mboolem kuréel yi nga xam ne nii fi la ñu nar a yëngoo nu ngeen ko organisé fi tey bismillah bismillah inna lillahi wa ma tawfiqi illa billah salaamaaleykum wa rahmatullah ñu nuyu mbokki julli ñu mbokki taalibe yi am na ci lool jotaay bu tedd bii nga xam ne Cheikh Ahmadou Mountakha yàlla na ko suñu borom yàggal lool te may ko wér moo ko waree tey jii tàmbali ko ci su tey jii mu mel na jotaay la boo xam ne nag li jëm ci wàllu alxuraan ak xasida ak sikar la waaye li jëm ci wàllu xasida yi suñu am sunu bàkk am sunu soin bu di ko defee fii ñu kër suñu Abdou Lahad waaye mel defee gi ko fay defee it moom mbooloo mépp ñoo ko ànd moo xam la ko ànd ak ñoom ndax démb rek def na visite ci mboolem barab yi nga xam ne ñu ngi fay def njàng mii nga xam moom la ñu tey kon nag euh, loola li jéego boo xam am solo la ñun nag sunu taxawaay fii mooy kuréel yi nga xam ñoom ñoo barkeelu yéen ci biir dëkk bi foofu la ñu ko joxee ndigal day mel ne kuréel yooyu yëpp ñu ngi leen a waajal ci diggante ñetti barab yii dañu war a sëñ Fallou ak fii ñu nekk ak nga sëñ Abdoulaye borom dër bi ak diggante kër yi Saliou ak sëñ Diamata su ko defee noonu yi yi ne dëkk bi yëpp nag su fenn fu ne ñu xool li dafa war a nekk ñëpp ko fa ñu loolu liggéey bi fii nag bañ xëyee ba léegi dañoo séddale su ko defee kuréel yi nga war a jàng dañ koy séddoo kuréel ku toog ba barkeelu tuuti rek jox sa morom a barkeelu su ko defee noonu lañ ko yiwee na la fii tey dama ba jàmbale ci suba ba léegi demeen loolu nag ba bañu julli àjjuma bu ñu noddee nag dañuy arrêté lépp su ko bu demee ba julli ba danañu wéyalaat ba waxtu bi nga xam la sëñ bi joxe ndigal war a yeewee noonu daal mooy programme bi nga xam ne moom la ñu waajee fii bi di ñëw itam ci ndigal li la looy soññ ñu mën ko waaw day mel ne ndigal li sax xëy na yéex bu mu yéex a ci ñu bëree bëri moo tax wàccaay yi waaye na comme def nañ ko tey war ko defal ajuma ji di ñëw ngi soññ mbokki taalibe yëpp rek ak fu a nekk bu ko sëñ bi waxee ñenn ñenn ñenn fañ nañ ñu defee ko fa waaye ñun ñu ne ci biir dëkk bi it nan gën a farlu bu baax ndax ndigal lu Cheikh mën na tax a joxe ñu ko ajumay Touba waa Touba war nañ cee toog kon nag ñëpp war nañoo ñëw ndax yëf yi suñu yombal na ko mën a sikkar nan nay sikkar ki nga xam ne day mën a yëkkati xasida di yëkkati xasida ci may alxuraan di jàng alxuraan loolu ko sëñ kon nag saa bu ndigal jibatee daal noo ngi noo ngi noo ngi noo ngi taalibe waaye daal li war mooy kenn war a def dara dara dara li sax mu taxaw masut loolu mooy mooy li war a def kon loolu ñu ciy soññee baax a baax taw yi nag rawatina yi moom bari nañ bari waaye boo xam ne fii li fi naroon na jàng ci ay waaye nag xam ne ne ñëpp mënuñu fay jàng kon loolu ñoo ngi koy dugal mbokk taalibe bi bu baax a baax xam ne daal suñu yéene mooy ñëpp jàng waaye nag euh, li fi xaj rek moo si mën a jàng ñu ngi yi ba tey ci ajjumaay euh, Touba ñoo ngi fii nag ci biir kër sëriñ Touba gi xam ngeen ne fii ñu nekk jàngkatu rajo si ñoom lañ ci féetale at mu jot ñu fiy def la ngay am solo ci taxawaayu Serigne Abdoul Ahad Koundoul sëñ Abdou Lahad kon mel na ni fekkaat na leen tey jii ngeen di taxawu liggéey bu am solo bi loolu ci mën a tënkal fii ci biir kër sëñ Touba bi. waaw alhamdulilah ñu ngi lay ziar bu baax a a baax ñaan Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg loolu taal bu wér comme liggéey bi comme ni ko amee rek comme ni ñu liggéey bi rek ak jànkale kat yi nekk buñ la la yóbboo fenn rek xam ne rajo kat yi ñu ber leen fii ci biir kër kon yoon tamit ñëpp daal di jot ci loxo pour taxawu taxawaay bi nag di di tëri bi joxe ndigal kalimatu xaq bi bu ñu daanee leen ci école bi rek lañ ko naat ubbee at xam nga man la bul faw dañ lañu ubbee liggéey at mu jot dañ noonu lañ koy def nii na dañ koy yendoo ba ngoon ku jàng ba noppi rek jox sa morom jàngeen boo xam ne comme ni ko sëriñ bi bëggee rek noonu lañ koy defee waaw lépp ñu fekko daal ci tawfeex joo xamante ni mooy ni ko sëriñ bi bëggee rek waaw kon lii ko sëriñ bi defee fi ñu am rek sëriñ bu ñu ne baax bi xool liggéey bi ànd ko ñun bu baax a baax di ko rafetlu bu baax a baax a baax. kon loolu xayma suba ak léegi ñaata jàngkat ñoo fi jot a jaar lan ngay tënk. waaw li ñu jaar ko ci jàngkat nag xam naa ne warna warna warna marah hujung nyata jangkar eh, timbang menjadi karena hujung nyata jangkar tidak pun karena dia berdiri dia yang mana ibu lu beri beri tak jangan lagi pada minum ubah kadin kalau tidak kau ini jangan lagi yang akan tunggu wakan hakan yang lagi ahmad mohon jangan lagi dia tadi ini yang lagi kita kau tak kau terakhir غمام البذل فيقول غدير نور داري استغفر الله به كوب كوي جاغ رك كوي نان كوي جان waaw ba noppi ñaan feex moom du taxaw mu yàgg da ajuma ji ñëwit ñu ko fas yéene dundale xam naa kàddu yi ngay tëjee ay soññe lay doon waaw comme ni ko comme ni ko sëriñ bi rek ni ko bëggee daal ni ko sëriñ bëggee lañ koy defee fas nañ ko yéene daal bu nu ko sëriñ bi soññee nga ànd ko moom bëggee ajuma jël ñëw di ci war war boolem jànkate xam ne yëpp comme ni ñu ko àndee ko àndee bi bëgg noonu lay amee incha allah fas nañ ko yéene ànd yéen ngeen yéen ngi rafetlu liggéey a baax a baax وللذي لها لخير ركنا ولتجعلنها ذات الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقها اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفع تي يانا غي سي ديغالو شيخ محمد المنتخا ني غن كاي ديف سي بيب ليغي غير سدالي كافي غي ليغي بي غن كو تامبالي اك ليغي اك ليپ لو تي تنك تي سي اورغانيزاسيون بسم الله اه ني سانت يالا بو باخ دي سانتات سيني منتخا ما غي ديكو نانال مو ياغ في لو تاند وير واي تام دي سانت كليفا ييب دي رافات لو باخ ليغي بيغا خامن موم لا ني ليغي في سي كير سيني توبا غي اند كو سونا ماغي سامباكي اولو كافي تاي نك فيدراسيون اولو كافي انترناسيونال نيو في داجي موي فيدراسيون بيغا خامن xam ne moo ëmb mboolem daayira ahlu café yëpp composé kenn ku ne yabal ay élément am ñu ñëw fii fas yéene taxaw ci liggéey bi taxawu li nga xam ne mooy café gi waaye bernde yi nga xam ne moo ànd ak bi ñu ànd ko waa isbu tarxe yi nga xam ne ñoom lañ ko yàgg àndal muy côté bi nga xam ne ñoo féete ci wàllum collation bi ak euh, sëñ Moussa Thiam ak sëñ Ismaïla ñu bokk liggéey bi di ko defee niñ ko daan defee te mooy bisu xasida bi bu ñu wër dëkk bi mboolem lu liggéey bi laaj ci ci ay taxaw yoo xam ne dañ ko war a taxaw rek ñu def ko bu ñëwee tam lu mu laaj ñu ñu def ko ci daal. bu doon xayma tey subaak léegi li ngeen jot a def ci café ay mbana ay bërigo ñaata ngay xayma ci gàttal. waaw kay bu ko defee ci subaak léegi comme wàcceegu nañ ñaari ñaari ñaari saako suukar mën nañoo xayma juróom-ñatti mbana jàllagun na daal yoo xam ne ci ndékki li lañ ko def d'ailleurs des na benn séance boo xam ne ñoo ngi ko war a dóor ak bu ngoonee aussi beneen boo xam ne ko jàllale gàtt gàtt daal jàpp nañ ne bu ngoonee moom danañ def 18 bana moom danañ ko def moom ajuma ji di ñëwit incha allah bokk ci ndigal li noo leen koy waajale ci ay soññe waaw comme niñ ko waa ahlu café fikki fépp foo xam ne membre ahlu café nga fa ñu koy wax ne bisu tay bi ab tàmbali la rek mais yegale bi mooy ajuma bii ñëw te moom mooy bis bu mag bi kon tay mooy misaal bi incha rab bi di ñëw nag moom mooy liggéey bi ñu waajal ko bu baax a collation rafraîchissement واجعل حريمنا حريما آمنا وكن بحفظه كفيل انضامنا وكب لها الخير من الجهات الست وكفها عن الآفات حكني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكل ما أعول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق الخلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما عن نصرف الرزايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حصنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وصلي يوم وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك وليهب حسن الختام عندك ولتصرف الصلاة للصحابة عن آله وهب لي الإجابة وليجد بكل ما طلبت بذي القصيدة كما التمست رب إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق فإني قريب نجيب دعوة الداعي إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد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 fekk la fi tey ci kër sëñ Saliou Fawzey ni ngeen àndandoo yéen ñëpp rek ngir uh, jëfe ndigalal uh, Cheikh Mouhamadul Mountakha di ni ngeen koy defee saa su ndigal tàbbee liggéey bi tey fii ci kër sëñ Saliou naka ngeen ko nosee ba muy wéy alhamdulilah rabbil alamin رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات bëgg ci réew mi jàmm bëgg am sëpp am jàmm comme na ko maam ja defoon ba ni xam jami alwara moo waral mu woote woote bii dal ko ci alxuraan ak xasida ak sikrullah bëgg doomu aadama ñëpp delluwaat ci yàlla xam ne yàlla moo bind ñëpp te ñëpp ci moom lay dellu loolu lépp ci la tënk xam ne ci teel ci la ñëpp daa ñu war a am kon bis bi bi mu joxee ndigal ci lañ takku mboolem day boo xamante ni yaa ngi sosoo ci kër yi saali di jëm si muy saali haadi bi rek mu ngi seen bi bu ak ñoom mooy fédération ma lay wax it kuréel boobu ngay dégg lépp sélection la ànd nañ bis bi ci ni ko sëñ bi bëggee woon muy jamaha boole jëm ñi ak benn ba mu doon di xàccandoo di sant bu baax a baax a baax. ajuma ji di ñëw it dañ ko fas yéene wéyalaat xam naa li ngay tëje ay soññ rek euh, jëmale ci mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo daje tey fii kër sëñ Saliou. waaw ajuma bii dañ ko fas yéene dundale comme nii ndax murit moom du wàcc buñ ko doon ba suba ñu sëñ bi ne waat suba ان ان ان ان ان ان في مغل توبا ساسونو بيش دا فاسيني بيش سات نيو فخه با تاخو لو ان داخ سيغ توبا يور ليب دا نيو داو ديم تي موم ريك كون نيغي ان مورو ييب خامني دال امور موم لا ييكي موي توسو ناي ناي ناي يورتو ان جانت بو فنك بو نيك دال ساسو غيسه ني نديغال سيغ توبا ريك موم ان خامني بيسام بوبو موم توفيق لا جوخانتي ني mën a a def àddina mën a def àllaaxiram kon ñu ngi soññi bis bépp di ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi lu tëgg ba yéeneem ak mébétam lépp ci ñu ànd koom ci ñaanal sëñ Cheikh Mbacke moom moom gudd aw ne moom lañ suñu di boole it mooy yàlla nañu ko téyel boppam ndax lépp mooy mooma ku gis bis bii ni mu demee xam ne ndimbalul sëriñ bi la ndax la ñu sëñ Béthio daan wax naan euh, ndigal du xatta du bette loolee moo fee feeñaat tey fii ndax ku ne xam ne ne bis bi jàpp ñu ko ci bis bu dellu si waaye ku gis li ñu fi def tey xam ne sëriñ bi ko fi def waaye du ñun ndax koo xam ne nii boo tëddee moo la tëral mm. boo jugee di dox moo la dox lool mm. kon la nekk say poos moo ko moom mm-hmm. kon tey koppar yi ñu am nañu ko jël jëfal ko sëriñ bi mm-hmm. te xam ne bis bi bisub tey bi bu dellu see mm-hmm. am na lu ëpp solo lu ñu war a defaat muy war nañoo dajale mboolem fondation yi sëriñ bi dogal ñu bootu ci kër sëriñ Saaliw yëpp ci fii ci biir kër gi maanaam képp kuy wuyoo sëriñ bi ajjuma jii di ñëw fii lañ lay dajale barke borom Touba kon mbokk yi jërë ngeen jëf nin ko ànde woon ak yéen ci suba ak léegi fukki waxtu jotee ci suba gi ci njàngum it mi di eh, kuréel yi ci ay bërëb yu fasantikoo noonu ngeen ko gisee dem nañ ci bâche bi nekk buntu kër Serigne Fallou eh, ci biir fi nga xam ne moo di résidence Khadim Rasoul eh, kuréel yaa ngi fi waaye rajaskat yi ñu ngi fi biir kër sëriñ Abdoul Ahad Mbacké ñi nga xam ne ñooy waa kër Serigne Amsatou ak mboolem kuréel yéen leen booleel ñoo nga fa dugg nañ kër Serigne Saliou foofa itam dongoy Serigne Saliou yi ànd ak waa fondation soppee Serigne Saliou ña nga fa waaye fi nga xam ne moo di biir jumaa yi itam jànkatu alxuraan yi ñoo fa féete kon mu nekk liggéey bu am solo boo xam ne nii ko sëriñ bi bëggee woon daal jàpp nañu ne kon mën nañu ne muriti ñëw nañu euh, waaye jëfe nañ ko itam nu kawe njortu ci suba gi gannaaw julleek euh, ajuma gi nag xam naa li des ci suñ euh, diggante ak julli ajuma ay simili yu néew la dañuy taxaw julli xewlu daal di gont ba 18 heures ngoon gi nag dinañ ànd ak yéen ci yeneen bërëb yu fasantikoo lu ci mel ni daaru xuddoos lu ci mel ni mbaarum daaru xuddoos ak yeneen bërëb yoo xam ne ni daal ndigal li ñu ngi koy wéyal waaye dinañ xamal itam ne mbooleem penc moo xam ne ni dafa nekk fii ci Touba noonu la ñuy dundalee euh, ndigal li ci jàkka yi ak jumaa yi waaye biti Touba yitam fu mel ni Ndakaaru ca Masaalikul Jinaan bitim réew itam noonu la ko mbokki taalibe yi di dundale ngir tàbbi ci ndigal Cheikh Mouhamadul Muntaxa ci fàttali nekk ajjumaay Touba bu jëkk bi tey ñu tàmbalee ko zikur la